mbokk jullit yi ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellusiwaat ci seen seen diaspora fas yéen ànd ak yéen ci waxtaanu koor gi ginnaaw bi ñu waxtaanee ci wàllu koor ak yi si aju yépp tey dañu indi benn tomb boo xam ne bu am solo la ci wàllu koor ñu koy wax laylatul qadr laylatul qadr nag dafa nekk loo xam ne lu am solo lool la ci koor ndax genn guddi la goo xam ne gu bari ay ngëneel la doy na rek ci ngëneel yàlla suñu borom subhanahu wa taala wàcce aw saaru lëmm jagleel ko guddi laylatul xadar kon loolu rek day wane ne kon guddi gu am solo la waaye bu si yemoon rek mu doy waaye suñu borom subhanahu wa taala wax ci لو ام صلو واخني انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربه من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر سني بر سبحانه وتعالى دي ني القران ني ني يالا القران تي ليله القدر kon mbokk yi lu rek gëneel la ci guddi laylatul xadar wàcc gi ñu wàcc alquran ci guddi laylatul xadar waaye yàlla suñu borom subhaanahu wa taala laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax xam nga lan mooy guddi laylatul xadar ak nan la toll yonent bi ne ko déedéet yow rek yaa xam yow yàlla suñu borom subhaanahu wa yàlla ne ko boo bëggee xam nan la toll mooy guddi laylatul xadar daal moo gën junni weer yoo xam ne amuñu guddi laylatul xadar allahu akbar génn guddi goo xam ne moo gën junni weer junni weer mbokk yi nag bu ñu ko doon xayma dana toll si quatre-vingt-trois maanaam nit koo xam ne dund na tey juróom ñett fukki at ak ñett ak ñeenti weer di jaamu yàlla yow boo jaamoo yàlla ci guddi gi leetu xadar sa guddi googa day mu ëpp doole fuuf 83 yooyu nga xamante ni kooko doon na ko jaamu yàlla te amul guddi leetul xadar kon mbokk yi lu rek ci ngëneel waaye yonent bi sallallahu alayhi wax ci lu am solo mu ne képp koo xam ne màggal nga guddi gi leetul xadar def ko ngir gëm yàlla ak sàkku yiw ñene yàlla dana la jéggal say bàkkaar yu njëkk waaye jéggal la sa ay bàkkaar yu mujj kon guddi la goo xam ne gu mat a bàyyi xel la guddi jaamu yàlla la guddik jàng alquran la guddi zikkar la waaye guddi itam def lépp loo xamante ni lu baax la moo tax nag boroom xam-xam yi di ko làmbatu ginnaaw bu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxañee ne bu ngeen koy làmbatu làmbatu leen ko ci fan yii moo tax boroom xam-xam yi dañuy werantee gan guddi mooy guddig laylatul xadar mbokk yi waaye nëbb gi nga xam ne moom la ko suñu borom subhaanahu wa taala nëbb nag loola dafa am solo lool lu tax yàlla nëbb ko mooy dafa bëgg ñu màggal weer wi yépp ndax am na ñoo xam ne bu ñu xamoon gan guddi mooy guddi laylatul xadar mën na am ñu sàggane yeneen guddi yi ba duñ ko taxawee niñ ko war a taxawee waaye yàlla suñu borom subhaanahu wa ci mbaaxam ak yërmandeem yi mu baax yëpp daf koo nëbb lu tax mu nëbb ko ngir bëgguñu fonk yépp xam ngeen ne salaatul wusta yàlla daf koo nëbb ci julli juróom yi lu tax yàlla nëbb ko bëgguñu fonk julli juróom yépp waaye nag ko nu wut itam bisu àjjuma yàlla suñu borom subhaanahu wa am na ci waxtu woo xam ne lu ci suñu lu ci jaam bi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa nangu ko waaye yàlla nëbb ko ci bés bi yépp donte borom xam-xam yi nag danañ ko nëbbatu maanaam di ko làmbatu fan la nekk ñi ne ci suba yoor gi la ñi ne bu imaam bi ñëwee la ñi ne bu imaam bi xutba première xutba bi ba ci toogaay bi foofu la nekk am na ñu ne déedéet ma nga nekk ci gannaaw taakusaan ala kulli xaal yàlla moo ko nëbb ci bis bi lu tax bëgguñu fonk bis bi yépp waaye naka noonu itam lu la yàlla nëbbee guddi gi laylatul xadar ci biir weeru koor bëgg rek jaamam yi fonk weeru yépp di ko màggal kon soo bëggee noppalu mbokk yi dangay fonk weeru koor yu yépp tàmbalee ko ca bis bu njëkk ba ba ca bisu mujj ba soo dundalee guddi yëpp jàppal ne dundal nga guddi gi laylatul xadar te boo ko dundalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp loo defoon ci ay bàkkaar yàlla jéggal na la ko ci barkeb guddi gi laylatul xadar kon mbokk yi xam naa ne danañ ñëwaat ci beneen tomb wax gan guddi mooy guddi gi laylatul xadar waaye ñu xam ne rek guddi gi laylatul xadar daal guddi gu bëri ay ngëneel la ndax si la yàlla wàcc alquraanu karim waaye yàlla nee na guddi la goo xam ne moo gën junniy weer ndax li yàlla am lépp ci ay malaaka guddi googu danañu wàcc si kaw suuf di ñaanal xeetu seydina muhammad salaamun hiya xatta matla'il fajri kon nañu fonk mbokk yi weeru koor wi yépp waaye nañu gën a bàyyi xel nag fukki fan yu mujj yi nga xam ne su la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu ngeen koy làmbatu da ngeen ko làmbatu ci fukki fan yu mujj yi xam naa foofu la ñuy taxaw ni mbokk yi rek incha allahu taala suñu waxtaan wi di ñëw dana ñëw ci gan guddi mooy guddi laylatul qadar واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته